maire yi di leen wax ne comme loi bi loolu la wax nee na augmentation su amee fonction publique locale fu d'état laaj na yéen aussi nga def ko maire yi am nañu commencé fay ñeneen yi aussi ñu ngi seet su dee mun nañ ko ñu def ko su dee mënuñu ko ñu waxtaan ak seen agent yi parce que même état bi si boppam bi ñu augmenté si wàllu santé éducation ñoom ñëpp dañ ko étaler sur deux ans ou trois ans donc loolu aussi nañu continuer di waxtaan dañuy wax ne que la libre administration maire bi moom mooy embauche moom mooy recruter mais ñun si état bi suñu demee ba jox leen ay financement ba pare suñu xamee ne effectivement que ñoom mënuñu ñu ñëwaat encore suñu ñu jéem a xool comme chaque année dinañu yokk si fonds de dotation bi ay cinq ñu jéem a seen ñan lañu ñu war a accompagner et puis augmentation bi dafa concerner yi ñuy wax ne fonctionnaire de la de locale mais koo xam ne dafa am prestateur de service ou bien ay contrat yenn contrat yi loolu ñooñu bokkuñu donc laaj nañu continuer di liggéey ak agents yi di waxtaan ak ñoom et je crois que comme ñii commencé nañu fay ñeneen ñi aussi dañu fay mais loolu nag mënuñu ko def seulement en claquant les doigts dañ si war a def par étape dañu war a def ba foo xam ne dinañu am lan mooy agent lan mooy carrière lan mooy avancement la xam ngeen sol lan mooy intégration donc loolu yëpp liggéey la boo xam ne bu am solo maire yi koy def ak le directeur